lël bu am solo la woon ci ñun ndax moo di giroon secrétaire CNTS euh, Elimane Diouf secrétaire CSA ak Cheikh Diop secrétaire CNTS FC ak man mii Mademba Sock dañoo dajeek njaati gi njaati gi moo di président la République du Sénégal ba mu jëlee fonction ba léegi dañoo daf ñoo woo pour waxtaan ñu waxtaan ci gis-gis bu mu am ci réew mi ñu wax ko suñu gis-gis ci soxlay liggéeykat yi ñu wax ñu ñaan nag mu farlu ci soxla liggéeykat yi parce que loolu soxla liggéeykat yi mën taxaar donc loolu jafe na te yaakaar ne li xew ci réew mi du rekk passage de témoin entre ñaari homme président sortant ak président entrant dafa nekk benn dynamique bu bees boo xam ne dañ ci yaakaar am yaakaar yaakaar bi moo di travailleurs yi nga xam ne dañ leen di loofa di leen lottal ñu tontu ci ci mbirum économie bi ci wàllu euh, liggéey bi surtout xëy bi yaakaar naa ne dañ ne gouvernement bi na ci farlu gouvernement bi na ci farlu moo di na def li nga xam ne mooy tax ndaw yi am xëy na def li nga xam ne aussi dund gi wàññeeku ndaxte denrée yi metti na réew mi jafe na yaakaar naa ne ñoom ñëpp dañ ci war a taxaw pour que ñu donc population bi te loolu am nañ yaakaar ne bu ñu continuer di ci waxtaan dana gis bunt bi du lu yomb nag waaye yaakaar nañ ne dañu gis bunt boo xam ne ci la ñu jaar.